bi ñu organiser semaine bee di donc loolu mu nekk loo xamante ne nii événement lu bu am solo ci bépp Moustarchid euh, dama doon wax sànq né njabootu Serigne Moustapha responsabilité boo mën di am nga nekk professeur d'université nga nekk ministre nga nekk euh, médecin loo mën di nekk lu la sunu borom mën a sutural ci àdduna moom bu santé liggéey lépp loo doon def da nga koy bàyyi ñëw taxaw ci liggéey boobu donc responsabilité boo mën ci am euh, mënoo nekk leneen lu dul njaboot et loolu moo tax ñu ñëw teew fii ak responsable bi nga xam ne ni ñoo nekk ci daayira bi euh, responsable yi nekk ci parti bi pour ñu ñëw def lu ñu mën ci liggéey bi nga xam ne nii ñu ngi koy pare pour sunu kilifa ki nga xam ne nii amuñu ku dul moom war a ñëw célébrer la nuit euh, du dessin, la nuit euh, bi nga xam ni moom la ñu suñu yonent bi tedd bi Mouhamadou Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ci boo politique sëñ Moussa candidat dafa am ñi nga xam ne bëgguñu dégg li ñuy wax li ñuy wax ñu depuis plusieurs mois pour ne pas dire depuis plus d'un an suñu candidat Serigne Moustapha la dama bëgg nit ñi xam am quelques euh, éléments yu ñu wara bayyi xel Serigne Moustapha mo nekk suñu candidat ci fànn yëpp au niveau légitimité ci politique Sénégal amul kenn ko xamni ni ëpp na ko légitimité taxawayam limu def ci politique Sénégal ñi ñuy woyé politiciens yeeg les les ay leaders rek Serigne Moustapha yemu leen li mu def ci politique amul kenn ku def donc en termes de légitimité mom mo gëna légitime qui que ce soit au vu li nga xam ni moy texte suñu parti jox na ko ci doolé té mu am ko it naturellement lolu motax ñun ñi nga xam ni ñun ñi nek ci parti pur yépp mu nek responsable mu nek militant mu nek sympathisant ñu bolo def ben say wax né Serigne Moustapha moy suñu candidat waaye nak mom nek na ko xamné ni kenn du ko wax li muy def ñun en tant que responsable du parti en tant que militant en tant que sympathisant suñu yéene lañ ko wax mom mi nga xamné ni nii moo ñu xam li xew danañu wax naka lañuy doxalé donc fofu la tollu mais boudé parti bo xamanténi ni moy parti bi gëna paré pare pour des petites élections présidentielles du parti pur nous Ben benn yoon mu nekk candidats. nekk di wax ay candidat di euh, kan suñu candidat puisque lolu c'est réglé déggu ben benn yoon ñuy wax waxi programme parce que c'est réglé suñu programme parraine depuis le 9 juillet 2023 suñu caution les femmes du mouvement euh, des femmes du pur dajale nañ caution puisque ñom c'est des femmes yo xam ni c'est des femmes engagées parce que jigéen li mu représenté ci société ñom dañ ko xam dañu xam tier bi ñu am ci société xam tier bi ñu am aussi ci parti pur ak tier bi len Serigne Moustapha jox mettre len en avant ñu nek ay miroir ñu nek ay ambassadrice lolu motax bi ñu né day dañuy dem ci élection ñom ñu ne caution ñom ñokoy topatol candidat bi muy Serigne Moustapha donc ñom nag caution Bobu réglé nañ depuis bientôt trois mois lan modès outil parrain parrainage ñun ñu ngi ci expérience bi puisque élection yi parti pur dafa am taxaway bu mu am ba nga ay parrain donc am ci expertise aussi bien au niveau du parrainage citoyen ak parrainage parlementaire donc on est prêt donc nous ni ñu ngi ci terrain bi aussi hein depuis lu tollu ak euh, deux mois ñu ngi ci terrain bi ni ñuy doxalee ci terrain bi c'est très simple pour que sénégalais yëpp xam ko parti PUR dafa parti bo xam ni dafa bayyi xel ay élus euh, bu ñu fekkee né def nañu am nañu taxawaay ba suñu ay élu ñu falen askan bi falen duñu leen bayyi donc de concert avec la responsable nationale de la conférence des élus muy docteur Maïmouna Sow dañuy def chaque week-end ñu dem ci benn région région la ñu tudd en termes d'organisation xam nañ ne aussi ak 3 de la décentralisation waxatul région mais en termes d'organisation loolu moo tax chaque week-end dañuy dem ci benn région dajale suñu élu yi ñu fi am yépp ñu laaj leen lan la ñuy rencontrer ci collectivité locale bi ñu nekk difficulté yi ñu fay rencontrer suñu ñu waxee difficulté yi ñu fay rencontrer wax leen aussi ñoom euh, ñu fàttali leen lan moo nekk seen mission basit boo nekkee élu local da nga war a jege sa élu local da nga war a bàyyi xel sa askan bi nga xam ne nii la fal parce que su fekkee dañ la taamu ci gox jiital la lépp def da nga war a xel donc loolu lañ leen di fàttali wax leen politique nekkul leneen lu un sacrifice bu nga xam ne nii bépp sénégalais daf koy def c'est pas un ascenseur social c'est pas loo xam ne da nga privilège lolu lañ leen di fàttali suñ leen ko fàttalee ba pare ñu def ay visites auprès des grands électeurs de chaque euh, région bu dem donc loolu ñu ngi ci depuis quelques mois nekkuñu nag di di ko def di ko médiatiser li ci ëpp solo mooy jege askan bi c'est un choix que nous avons fait jege askan bi euh, nekk sur le terrain Serigne Moustapha aussi loolu ñu sant. suñu programme moom la wax sànq noppi na depuis le 9 juillet te jàpp naa ne ci programme yi ngeen découvrir su fekkee ne am parce que bari euh, parti politique yu wax programme programme mais bo xolé euh, ben page lay nek mais ñun li ñu produire euh, te sax xëy pour nous fi pour mu leer pour wax rek ñun lepp lu ñuy def dañ koy def ak méthode c'est un programme bo xamné ni le responsable national chargé des élections et du programme daf ci avec une équipe de plus de 15 experts durant presque un an nous ñu préparé au mois de juillet nous dem conclave avec plus de 100 experts yu ont fait un dañuy seen xam-xam dafay ci domaine médecine, ci droit ci médecine ci économie ci finance ñu dajale leen Djilor Île du Saloum pendant trois jours ñu jël programme boobu nga xam euh, les les les responsables avec le responsable national du parti Tegnenko ñu jël ko càmbar ko point ak point experts yi joxe ci seen xalaat ñu réactualiser ci luñ ci réactualiser mu nekk programme boo xam ne nii dafay couvrir tous les domaines yoo xam ne nii état war na ci intervenir donc en un mot parti pur suñu jëlee nguur gi incha en 2024 xam nañu fu ñu teg seen tànk xam nañu fu jëm puisque seen programme pek nañ ko maîtriser nañ ko programme la boo xam ne nii bu leen ko découvrir di ngeen xam ne nañu